ci joxoo benn cër waa réew mi loolu mooy famille Guigon pharmacie Guigon bi yeewu dàq ay liggéeykat ndax dañuy julli ci béréb boobu loolu moom kenn mënu koo nangu ginnaaw ñu ne ku rey nit kenn du la rey te loolu la charia wax lislaam loolu la wax ginnaaw ñu ngi jéem fexe ba góor ak góor di sëy góor jigéen yi ñu naan na ñeen yaatalal ginnaaw ni ko Souley Mbaye waxee léegi ay école comme Jeanne naan kenn du fi def voile kenn du muuru ginnaaw loolu yëpp benn pharmacien ñëw ni julli du fi am ci réewu jullit waaw ñun loolu dañuy toog di ko xool rek moo tax tey di ko sunu grand maçon na kan waxee ak Souley Mbaye ak imaam yi fi toog tey dañuy ñëw pour jooy ak jooytu képp koo xam ni l'islam moo la ñor jullit nga même boo dul jullit sax war nga am solidarité ndax ñu ngi aaye nit mu topp diineem ci diine même bu dul jullit diine bu nekk nit am nga droit topp sa diine te loolu constitution bi moo ko may sénégalais bu nekk kon li am tey rëy na lool musiba bu rëy la tooñ gu metti la bu nit ñi di doxee benn tànk da ngay sa benn tànk ànd na ñoom doxee benn tànk mais mënoo nekk ci réew mi quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ay julit nga bëgg leen toroxal ni seen diine moom faalewuñ ko loolu nag bukki bu yawee ma waxambaane ci yow dox na wala ko dafa laaj Sénégal jóg nekk benn muy katolik muy julit ku ci nekk sa diine ñu sàmmal la ko bàyyee la ko bañ laa toroxal loolu nag lañ bëggoon a wax ndax tooñ bi metti na lislaam sonn na lottu na senegaal te réew jullit la nañ ko sauver nañ ko taxaw ce que je voulais dire chers amis c'est que trop c'est trop l'islam est agressé à longueur de journée dans ce pays alors que c'est la de plus de 95 pour cent des Sénégalais le Sénégal aurait pu même être un pays islamique mais qui tolère toutes les religions, donc qu'on respecte cette religion qui est majoritaire dans notre pays. Ce qui s'est passé à la pharmacie Gigo, c'est inacceptable. Après les multiples agressions dont l'islam est l'objet et la victime, notamment la suppression de la peine de mort, qui est de Dieu. On a désavoué Dieu et la charia. et personne ne dit rien. Après, la tentative de légaliser l'homosexualité, après la tentative d'interdire le port du voile à l'école Jeanne d'Arc, après tant d'agressions, c'est maintenant Guigon qui entre dans la danse, qui vient provoquer les travailleurs musulmans en les empêchant de prier dans les locaux de la pharmacie. Cela est inacceptable. Cela doit être dénoncé. Ces victimes de Gigon doivent être immédiatement réintégrées. Et je lance un appel solennel. Et nous lançons cet appel. Maître Bassonakan, Maître Souley tous les autres avocats et les imams qui sont là, au président de la République et à toutes les autorités de ce pays, pour que Gigon soit expulsé de ce pays. il sème le désordre, il provoque, il trouble l'ordre public. Je vous remercie. Euh, merci.